Voilà, voilà, merci, merci Ba. Je pense qu'il n'y pas tour, euh, pas à de midi à 14 heures. Kër gi depuis ma fi ñëwee il n'y a jamais eu de cas de vol. sàcc nañ fi deux cent cinquante mille xadi nobay mii moo fi bees diggal fekkee ne yow gis nga xaalis bi nga yow gis naa xaalis bi mu ngi nii ñu jox ko ko ndànk wax bañ a am ndax nun la suñu biir yow ci famille bi nga bokk yow suñu doom nga kon lu ñaaw xaju fi n'est-ce pas non c'est yow li ngay wër di wëraan man moo ma jaaxal mais ab demal direct kii sàcc la moo sàcc xaalisu xarit bi sàcc la lu wax ko loolu moo sàcc deux cent cinquante mille yi loolu mooy wax ji ba il faut arrêter mooy la tey lu ñu arrêté nit sooy wax ak moom la ngay wax ak moom ndànk wax ndànk mooy waxee la ah si xanaa du suñu doom dara leeruñu si moo ko ci def dara leeruñu dara leeru ci mooy waxee la kon ndànk est-ce que yaa ko jël oui ou mais bu fi ni di xët xëti poobar poobar poobar bu leen bu leen fii jàppe kan nga wax poobar yow ah poobar lu ci ne mais ma may wax du tur sama lan mooy sama tur. mooy sa tur ah. waaye xoolal ça ça c' est la discussion. wax ñu ne Katrina Dione la ñuy wax. ay waxi poobar ak kaane ci yam. waaw nañ waxtaan ak moom. fekkee ne moo ko jël. mu génne ko joxe ko ndànk. mu yem ci ñoom voilà ndànk boobu war a def. waaw waaw lii mooy yu ma kilifa nu njaboot nga. lu ñaaw xajul sunu biir. te ñëw nga on est content de ta venue dans cette maison. ndax fii nga bokk. mu neex mu naqari. Mm. c'est ça le problème léegi vas-y. yéen ñett ñi pare ngeen. pare nañ. yuut ngeen ba pare. ah ñetti paa su ngeen moom moytuwul dinaa fi toj. Eh, eh, toj la toj. yow toj. xaaral yéen ma ñëw il faut ma yéeg ci kaw am nu ma mel ba pare ñëw wan leen nan laa leen def. te xadi moomu ngeen di wax xaw ma xadi xaw ma man lay jëñ saat xaar leen maa ngi ñëwaat. xadi boo ko laaj naa la yóbbu gendarmerie. Eh, bul yéeg yow nit ñaa ngi wàcc ngay yéeg loo yéeg. gis nga gis nga gis man gis nga waay waay waay waay kii laay yóbbu gendarmerie ah, waay mooy dem. yow yaa ko eh, attaqué eh, waay waay waay waay. man amul métti amul dara moo ko attaqué. xamoon naa ne mu ñu fi indil doom jorom ji kii. yow yaa ko jiñ de tout. ba ci leen man nag balaa mooy ñëw maa ngay dem kër Binta. fan ngay dem kër Binta. donc defe naa yow nooy demee bàyyi fi bàyyi fi say xanaa yow nekkoo moom kër yi. waaw waaw maa ngi dem ci Binta demaa soxla woon Binta xanaa sañ naa faa dem no noppi. waaw mais toogal bañ terminé. décision yi ñu terminé. waaw moom mu ngi yéeg kay wàcc. ko man maa nga kër Binta ah. man sa doom ji boo ci jëru di man dinaa ci jóg waaw yow tapé kan yow. tapet bi muy wax yaa ngi xul sa bëri. man man yaay ragal c'est-à-dire gone gu toog di saaga ay baayam. loolu la mais man yow mi baayam ragalu ma di ko ragal. ah yow ñu ko teg benn place. fa ngay teg doom benn place. xamoon naa doom yi sa hmm. doom doom yi nga fi voilà yaay xaj yow. man sama doom yi gis ñu def li lan lañ def gis nga Massar gis nañu civilisé. kan moo civilisé kenn waxutu ko. nii lay nii lay nekkee da laa ñaan yow. nii lay kan yow lay may nga ñaan. waaye kooku waaye du porte à porte lay def nga may. toog yow. kii kan la tubaab bi kër gi ñu daal yaay tubaab tubaab lu si kër gi quoi yor sa xaalis di def lu la neex gérer kër gi quoi yow la. yow la ngay wax ni yow. yow xamoo li may wax. mu ko xamoon naa la ko laaj. xamoo li may wax. yow di yow yaa dem si paa yi naan leen ay dama yaa yaa ma gis ma dugg sa néeg jël si deux cent cinquante mille. man mii. yow. da ngaa dégg ma dégg tudd sa tur yow. eh xaaral ma wax la benn affaire damaa bëgg yow su may wax nga déglu ma nga noppi. waaw. nga seen daf-daf lu goog ngeen nekkee ak seen yëfu réewande yi ngeen di def si kër gi neen ko si seen yaay ak seen papa yi. waaye man lu ma jotee ak yow. xamoo ko yow de yow yaa wax ne yaa ma gis ma dugg si néeg bi jël deux cent cinquante mille nga naan ba tudd sa man mii sa papa moo wax. sa papa moo ko wax nee na yaa ñëw wax ko ko ni yaa ma gis ma dugg si néeg bi jël xaalis bi yow yaa ko wax. xam nga problème ngay te man mii xuluwuma xeexuma dama bëgg rek nga may ma sama eh, jàmm. dangaa bay xeex yow yow sañ ngaa te wax bi sax damaa bëgg nga noppi déglu ma yow amoon dara loo wa déglu laa la wax sa tubaab tubaab googu ñoom nga koy jaay seen waa kër yi man ma la yow ak sa tubaab ak li ngay def ak yeneen ak yeneen. jarul nga may xool yéen ñëpp ay seytaane ngeen fii ngeen nekk di fiifu seytaane rek ngay wax ngay wax sa papa naan maa jël sa deux cent cinquante mille fan laa jëlee sa deux cent cinquante mille ak kan nga gis mu jël sa deux cent cinquante mille yow dangaa yor dara yow sax yow xamoo sa bopp nag. yow lu xew fi lan la yow yabaate nga yow da ngaa fuuy. lan la yow man faalew ma la te lijjantiw ma la. Eh. boo yoree sa bànn may ma yow may ma lan la. mooy yaa soof. yow lan la. laaj ko sa doom nga naan ma ay lan la. yow laaj yow mi fekk fii commencé mel ni agressé bi di kii. Ah, maa ko agressé wala moom moom ma agressé faalew ma la faalew ma yaa ngi doog a wax parce que say eh, kii moo tax bu fekkee mère bi nga yaakaar sa yaay ju lax ji moom nga yaakaar xaw ma dafa meew xaw ma lu muy def ni yaa ngi nax sa bopp laa wax. yow sama gën a laxati. Eh, yaa ngi nax sa bopp. <laughs> bu baax lu ma la wax te dama wax ne la yéen ñaar laa yemale su may wax soo noppiwul xoolal si kanamam laa lay jamee ba nga sedd jam dégg nga li ma xam nga lan la sekkuñu ko ak yow. yaa ñu fekk ci kër gi amuñu ak yow benn affaire. jotewul ak yow yow li nga xamul moom laa lay wax fii xam nga sama yaay moo fi waroon nekk hmm. man maa fi nekk te yow yaa ngi commencé wujjante wujjante bi ngay bañ mi ngi doog a commencé si man lay commencé dinaa la won loo xam ne fii nga toog fii génn moo lay gën a kii nag si bu chaque fois nga surveiller ko parce que sinon ah nga fiy fe néew maa wax lii yow. lii moom duma ko bàyyi mu jàll. lii ba nag bu ñëwee dina ci wax kii moom danañ ko abal kër gi. mbaa mu abal ñu rek de deux choses ay man jaañ ma waaru. caam de xamoon na ni maro dana client boo xam ne xamul fu mu koy yekkale ci àddina sunu kër gi. ay lii mën de wax dëgg yàlla sax man dama bëggoon dem fenn man toog fa pour quelques na ndax kii nii ma gis nii yaay man mënumaa dëkk a moom si kër gi de. fenn nga demul moom moo nuy abal kër gi yóbbu na ko. Hmm. fii moom moo nuy abal kër gi bàyyi ba sa papa ñëw. Hmm. xamoon naa ne lu ne dina fii lu ne dugg na fi ci kër gi ay ñun fu ñuy wax a lii ay la illallah. Ah, bëgg naa laa ndax xool naa ba xool ne bu ma la dimbaliwulee di nga sànk ci mbedd bi ndax man gis naa ne lii tayoo awa dama waxtaan ak samay mbokk mm. expliqué naa leen lépp gàcce gu gàtt nag moo gën bu gudd li ma bëggoon mooy nga dem Louga boo demee Louga toog fa ba nga mucc ak jàmm <laughs> ngay doog a ñibbisi mm. ndax fii boo fi nekkee wax yeeg gaaruwaale yeeg xastante beeg defante bi man attanuma loolu su ko defee man fii dinaa gérer ba mu normal te bis boo ñibbisee awa nga woddu sa sër te téye sa bopp awa regleel nga nekk nit bàyyi sa dof doful gii nga nekk nekkal nit ah mooy déglu ba nga pare rek ba pare nga xam ma waaw waxal yow yàlla moo tax nga bañ ma wa man na naa lay juree di la bañ dag maa wax awa ah, nag yow doo ngaa dafa yow bañ ma mënu wees yow bàyyi ma nga naa ma ay benn yow bañ ma dafa mën a wees nga may delloowaat Louga danga yaakaar ne Louga la fa nekk dem naa fa de seen kër goo nga xam ne amul courant amul ndox dañu rooti ji ca teen ba ba ci lan ah, man yaay man damaa mënul dem foofu man foofu dew ma fa la permettre awa nga gën a nga gën a sa doom ba pare mel ni hmm, man li ngay wax nii man instant bi man yooyu intéressé wu ma de man ëmb bii nga wax di ko sóoraale man loolu sama yoon nekk fii laa ko ëmbee te fii laa koy wasi ne fii bousez wu ma fi mett sans sans sans problème yu daal da. Hmm. li nga war a lijjanti lijjanti woo ko yow yaay danga maa mës a seetaan yaay danga maa mës a seetaan. waaw noo sama viol bi la si wax. gis na nag kaay nag ma wax. gis nga viol boobu foog ma wax ci nag. a ma diira nga may santaay di ma napp ci viol bi. avant ma violé dee may ma jàmm ak viol bi. yóbboo ko police soo ko yóbbu woon police. dama ko wax naa la ko dama ko yëgoon wax naa la fan yi dong la gaañu waaye avant muy gaañu soo ko yóbbu woon police kon lii yëpp dañu si man aw doo ma yëngal man doo ma rey man doo ma rey man man xam nga lan la li ko wax daal li ko a li ko gàttal mooy awa ngir yàlla hmm. régler sa bopp régler sa ku réglé sa bopp rek ma réglé sama bopp ku ma tooñul du ma la tooñ fii ko fii yow fii ko ko def bi yow yaa wax fii naa yow yow ah, li ma def lu ci nekk ko fay jëkkee wala ma mujjee ko fi dama fay mujjee ëmb ah ah. ah mujjee ma fi ëmb de moom te njëkkee ma ko fi. Hmm. yàlla baax na yàlla yàlla mu baaxee day tey. aw réew réew la gu bees tax nga génne fi mu toll nii. waaw parce que dama ëmb ëmb kay réew. sais pas non kër gi noonu nekk nii mu demee nii nga dem kër Binta Diakhane di naan ay njar la lan la ah. mais oui le mal dans tout ça. papa mal bi mooy yow da nga ne woon ñëw pour uuf ñu waaye uufoo ñu yow yow da ñëw pour ba ma xamul kaj ñu xamul pour def la comment ah comment kaj leen. mais toog nañu fii on a réglé un problème après je suis allé chez fekk moom ma doon karkare di ma woo li ñu toog fii yëpp mu may envoyé ay ay ay ay message mais y' a y' a pas de mal à ça. wala léegi yéen da ngeen da ngay bëgg a soxor sax du ma du boole ma ci caam yow da ngay a euh, euh, euh, fiir ci sama diggante ak ak binte wala lan la. fiiruma wala gannaaw yow état jeune da nga dox da nga dox am yow yaa a am ñaari jabar wala comment ça. mais quel qu'est-ce qui se passe maintenant. Eh, grand ci caam. ah bon. si fiiree caam c'est comme lu tax. man tey su ma deewoon leer na ma ne sama doom yi doo ah, bi ñëw menace dem daw. dem c'est c'est c'est c'est une une pire co je devais aller chez Binta elle ne cessait de de m'envoyer des messages papa foo nekk papa foo nekk bon nous avons réglé la chose. peut-être ça restait un tout petit peu et je sais que vous êtes capable de régler ça. C'est pourquoi je suis parti. léegi nag. mais mais mais y' a pas de mal à à ah, mais léegi am na beneen problème ci kër gi fi ah. Ah, ma jëlee waaw. dañ ko war a defee. qu'est-ce qu'elle la après wala. déedéet ma fay ko. ci oto la dugg ñu dénk ko saak ndeti saak bi yamba kese la. oh la pauvre. léegi nag ma bëggoon nga gaaw sa xarit procureur bi wax ak moom gaaw moom fi sus quoi def intervention. kooku sama xarit sama doom. kon kay léegi c'est bon SGF kon kooku du sama xarit sama doom. waaye am na loo xam ne nii neexu la ñaan ñaan man duma dem di ñaan naan sama sœur day jaay yàmba may ñëw di taxaw di ñaan maa mag loolu non non xam nga dañ leen wax rek vous n'avez pas vu ce qui a été mis sur le PV ma ne man du dugg ci yooyu ruus naa dem ci sama kanamu doom di ko ñaan naan ko dañoo jàpp sama sœur daa yoroon yàmbaa saaku yàmbaa gis nga y a des yoo xam ne dañ ko war a éradiquer xale jigéen nu mu jaay yàmba. dafa jaay jaayul yàmba dañ nu mu yore yàmba. mais loolu la teg seen loxo. mais dañoo dafa teg man xam naa ce qui se passe loolu la ñuy wax. naa ce qui se passe moi j'ai francisé des des frontières. waaw am na yu ma gis man xam naa am na ñu koy woddoo. waaw am na ñu koy mu koy musooroo. waaw loolu yëpp gis naa ko. musoor fii la. am na ñoo xam ne dañ koy woddoo ñuy ko ci man j'ai j'ai j'ai franchi des gis naa ce qui se passe. j'ai franchi des frontières avec quoi avec des de yamba. non gis na non c'est pas clair. non j'ai pas dit j'ai parce que non attends suñu sœur ni dafa jël yamba ba pare nga ne tu as franchi des frontières avec des aussi ah, si faut pas déplacer bu ma di caam la ma di pas caam le je vais le déplacer non écoute yaa nga jiiñ suñu sœur bi mu deful ma ne dama ne dama ne je ne dis pas que li ma wax se clair dama ne je ne dis man dama doon franchir ay kii ak ay saaku yàmba dama ne la bu may franchir ay frontières damay am ay fee yu may gis ay nit ñoo xam ne nii dañuy woddoo yàmbaa ji wala ñu musooroo ko wala ñu boot ko man yooyu gis naa ko kon nag yii buñ ma koy wax man Eh, mënul a kii mais en tout cas ce que je peux vous dire ah, s'il s'agit de foofu laa bëggoon ma la joxoon. ma un million cinq ma jéem ci lijjanti avocat jox delloo ma un million la fois que tu de cet argent. pense que dès cet après-midi je te rends euh, donne l'argent après tu prends. say yëfi bopp. ndax non ça commence à m'énerver tu commences à m'énerver ba. énerver comment ah kay. yow buñ ne nii nga ne un million cinq cent mais mais kuy ay ay millions millions daa faale un milliard. ba ba mais ba dama ni. non ba ba non il faut qu'on soit clair. tu as confiance en moi ok si tu n'as pas confiance en moi la dans l'après-midi je un million cinq cent. Ah. waaw. Euh, s'il y a s'il a qui. su fekkee ne loolu la moi je peux payer l'avocat chercher un pool d'avocat ma fay ko. léegi baax s'ils sont cinq ou six je paye. waaw léegi. waaw ah, avocat mais aussi xoolal affaire l'affaire de Binta aussi grand personne si un parce que ça un peu louche là quoi. Franck xam nga yéen aussi. non non da tu léegi mais tu n'as pas compris que yow aussi nga seetal sa terre. mais c'est une affaire de business. c'est une de business. Binta je l'ai mis dans un business extraordinaire. ah bon oui. elle est très contente. ah oui je l'ai mis en rapport avec des partenaires des partenaires privilégiés. ni grand-mère naa la. non yow ton tour viendra. non non non non ton tour viendra. xoolal bul prox ndoolu. non bul prox ndoolu. naan ma ton tour viendra. non je suis ton jeune frère. non une femme nga nga nga nga bàyyi ko ak des partenaires bàyyi sa bàyyi sa sa jeune frère mu sauvé. c'est-à-dire non c'est-à-dire joli. non non c'est-à-dire dans le domaine dans le domaine où elle excelle yow du sa domaine. E oui yow j'ai pensé que ay conteneurs. laa bëggoon ñuy ñëw loolu maa ngi koy lijjanti pareegul yow bul yàkkamti tu es mon jeune frère. lu may def ci àll def ko ci yow. sa beneen partenaire boobu tubaab la bu ñuul la dama bëgg nga def très attention. ban parce que dërëmam du dem ci noonu da ko ñàkk ñaanu ko sàcc tubaab bu ñuul la. kan euh, maa fii xadi jox na la xaalis nga ni danga koy tabaxal ah il faut faire très attention hadi tubaab bu ñuul ah, waaw léegi moom wonuma ay kii lu entrepreneur lii acheter voilà. waaw mais non ah euh, ko. je vous dis moom n'ayez pas de moom on si étude sol bi ci la ñu ne. defal nañ ko plan ñu ngi étudier sol suuf si suuf si pour xam lu mu attan te xam nga loolu bâtiment yi ngay dégg ñu daanu yëpp loolu la. Ah cette n'a pas été. Ah, n'a pas été mais foo nga xool ko loolu c'est des termes techniques yoo xam ne tu ne peux pas comprendre mais yow il faut que ñu commencer xam nga koy jàng. loolu nit day bëri ay pax. amul problème ah, ah. c'est ça. Ah, donc euh, c'est ça ne vous en faites pas. ne vous en faites pas on est simplement à euh, l'étape euh, d'étude du du du du sol du sol maa ngi koy xool. nga loolu c'est un peu c'est un peu technique quoi. waaw je vous l'explique ma dem kër Binta te ñëw waaye. encore waaw mais mais on va prendre le thé là-bas. dem na non ñun tal ñu tey fi mu toll nii suñu sœur bi lañu tal. Hmm. vraiment. am problème. Ah, on donc mhm. on mhm. je reste bi tey day gis moom damaa ñëw man donc. Ah. xam nga nag sa waay moom. man waay déet man gore diw ah. na loo xam moom mën nga ko cee defal ñaan. Mhm. ndax moom daa teewul lii waaw. <laughs> keroog eh, eh, eh, yàlla baax na sax bi nga ko ne na dem xaar. day nettali. mais sa waay la nag. waaw mais day net day wax. day nettali am na yoo xam ne nit du ko nettali nit. feebar na feebar yoo xam ni ak soxla yoo xam ne bu siyee moom yàqu nga. ah kon keroog waxu sa soxla yëpp. ah wax na sax mais moom fi mu ne nii moom sax mi ngi jéem a tato ne lu ma fi doon wax ak nangam di wax da koy wax loolu moom nga ko cee ñaanal. Mm-hmm, mm-hmm. waaw eh, yoon nag. Mm-hmm. samay mbir. man dañ may bëgg a yeb yebu kër. waaw yebu kër mooy soxna yi ñu ngi may bëgg a yeb waaw xam nga man ñeent laa yor waaye du ma la nëbb. ak at nga am nii. waaw mhm. xam nga li la mhm. eh, fu ma ay lay wu na nag naa ko. Mhm. yenn saa yi sax ma ni liggéey ba kii ñu ne ma yee eh, nelaw andiwu fi. wala stress waaw waaw nelaw la fi. wala bii mm, ma daan demee daal demee mu noonu. demeetu mu noonu fi mu ne ñu ngi may bëgg a xam nga li ma la wax. am na koo xam ne moom daal rakkaaju moom. da koy wax pare xëy dëgg ji néeg ni ci ëtt bi di ko wax. loolu moom laa bëgg xanaa nag am na sax lu ma mën a lu mu mën a renforcer maanaam daal. Eh, yow yow xam nga ne yow xam nga ne am naa lu la renforcer moo tax nga ñëw. moo tax ma ñëw waaw ah? waaye boo ñëwee nga laaj ma nga ne man loo tax ma laaj ndax am nga yow xam nga ne am naa ko yow xam nga ko wax gaawal ci man boo gaawul yeb nañ ma ñu ngi may yeb naan kañ sëñ bëgg nga may ma góoru saalum wala nga jaay ma góoru saalum loolu ngay wax yow xam nga góoru saalum bu baax ah góoru saalum nag yàlla daf ma dimbali bu bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy fëgg seen dënn wala dañuy beew wala dañuy yàlla ñu yàlla musal ci loolu mhm. waaye góoru saalum kase kot hmm. moo tax may taxaw ci dëkk bi di fëgg sama dënn góoru saalum xam nga lu tax parce que dañ ci yàgg rek ay kër loolu nag waxin la waxin la dañ ci yàgg rek la ay problème mu kër euh, réglé nañ ci problème ba àgg ci sax ñoo xam ne takkoon nañ seen bagage pour tas ndax seen jëkkër dafa tële ci wàllu néegu sëy li mu li mu mën lu ñu mënati mënatuñ lu bari mhm. nga xam ne seen jabar yi dañu nekk ak ñoom te duñu am bànneex duñu góor ñi li ñu mën du bari mais garabu góor saalum bi bu ñëwee dafay régler problème yooyu ci kàttanu yàlla mhm. góor saalum nag bëri na ay problème yoo xam ne da koy da koy régler ci nit ndax day raxas deret day mhm. xiifloo nit da koy lekkaloo day facilité digestion di yokk ndoxu góor mhm. di yokk wala jaanu góor mais di yokk kàttanu sëy yokk bu ama ama am solo yokk boobu am solo léegi nag gis nga euh, kàttanu sëyu góor boobu mhm. moo gën a tax ñu defar góor Saloum li ma ci wax yëpp da ko ciy def hémorroïde sax da koy dalal mais kàttanu sëyu góor moo ko gën a tax a jug góor goo xam ne dafa takk jabar ragal fay ñëw moo xam mu nekk biti réew fu mu mën a doon takk na jabar ragal na dem na jël góoru Saalum mu dem ci jabaram góor goo xam ne takk na jabar ragal koy jëli na jël góoru Saalum mu dem jëli jabaram góor goo xam ne nekkoon na ak jabaram yàgg nañ jam na ba léegi nag jàpp na ne moom kàttanam dafa néew mhm. na jël góoru Saalum jigéen ñi nga xam ne nag góor ñi seeni i góor dañ am kerse waxtaanee ko te jigéen ñi xam ne seen jëkkër dañoo new kattan ba hmm. àgg ci sax jigéen ji moom mënu ko wax jëkkëram hmm. bu ko neexee bu mu wax dara na jënd góoru saalum bi su jëndee góoru saalum bi mu defal ko jëkkëram dana gis ne soppeeku dana am ci côté boobu incha allah hmm. léegi nag ak fu mu nekk ci Sénégal ñun am nañ ko ñu fa nekkal fépp fu nekk ci Sénégal ma vocal rek ne ma dama bëgg góoru maa ngi barab sàngam foo mën a nekk wax ma fi nga nekk su ko defee ñun dinañ la yónnee vocal yoo xam ne moo lay wax li garab gi di jar li muy jëriñ ak naka lañ koy jëlee bu ko defee su dee biti réew nga nekk ñun dinañ xamit nan la ñuy def ba nga jot ko fa nga ne incha allah li wóor ba wóor ba wóor ba wóor mooy <laughs> ñeneen ñi nañ fii mais yow mm-hmm. soo jëlee góoru Saloum bi mm-hmm. ki la daan yàpp sax waxuma la dara de bu mm-hmm. xëyee dana indi ndox commencé sukkee di la ko indil ba fii ah moom ko wax incha allah loolu <laughs> <laughs> du ko gëmee eh, dama cee ko wax daal ràkkaaju boo defee ni ba tëdd ci nelaw nelaw a des mu naan la tóllanti bu ñu dem ma jox la pot ma ngay la pot incha allah dégg na nga xëy na nga fexe ba nanga ko naan tey bu suba bu suba jëlee ku ko soxla dama vocal ci 78 533 16 kon daal bu ma ko jëlee ku ma ni tollante ma bu subaa vocal ma ci numéro boobu naan ko tey ci guddi bu subaa boo xëyee fajar nag di ma lu ma rek na nga goro vocal ma <laughs> wax ma li xew dégg ma lay woo incha allah baax na jërëjëf <laughs> def noonu jërëjëf ma jox ah, <laughs>